عقل مدار asalaamaaleykum mbokki taalibe yi xam ngeen ni bu ngeen déggee sunu kaddu nag ah màggalu xaadimu rasul bis bi sëriñ Tuubaa wàcceeb liggéey Cheikh Moustapha jële ko njaareem indi ko Tuubaa taxaddam wane la ko rasulillahi yàlla di ko fay rasulillahi di ko tee mooy màggal gu mag gi dégg ngeen Cheikh Amadou Makhtar nu ma ko waxe waaye doomam seen sët bi nangu ndigal te man ci ndigal tey jafe ndigal kooku mooy kan mooy sëriñ Moustapha Mbacké Mouhamed borom afi bàyyil xel bu ngeen déggee sunu kaddu nag le huit mooy bisub Cheikh Moustapha bi ñu jële woon sëñ Bamba njaareem indi ko jëbal ko yàlla ak rasulillahi bis boobu sëriñ Moustapha Mbacké Mouhamed ak dayra fi bàyyil xadim yëpp takk ko nañu def ko nañ ko daa defee màggal ko nañ ko daa maggale yëkkati ko nañ ko daa yëkkatee jëfe ko nañ ko daa jëfe looloo waral ah ndigal loolu rot ci sëñ baara rakkam ji ki topp ci sëñ moustapha yore afi bàyyil xadim ak dayri sëñ baara foo ko seen muy dem bu laajte ci ndigal la sëñ moustapha mohamed la nekk ak kan ah bàyyi njoogu fall ma àndoon sëñ mbàkki soxna loo toogal ko fii ci ndakaaru toogal fi sëñ moustapha mohamed ak la ko wër ak ñi ma àndal ñëpp ak kan bàyyi cheikh jenn mi nga xam ni mooy jiite section dakar ànd ko ak ñoom ak afi bàyyil xadim yëpp la bu jotee ca Fass Mbao ci suba la ñuy ànd ak sëñ Baara mu jiite convoi bi jaar kees jël waa kees dem jaareem fa lépp sosoo xaar waa Kaolack dayira ba ñëw fekk leen fa afi bàyyil xadim yëpp àndandoo dallu dafay waxtaan jël xéewal yi màbba nag dem Touba fekk sëñ Moussa Mamet borom niveau ji kon bis baa ngi noonu le huit di màggalu xaadim rasul moom dong la ñu wax ni ba ko Seex Moustapha jëlee njaareem indi ko Touba ko fanaan ci bis bi boo xëyee tàggoog bakkaar daaru xudóos réclame na ci ñëpp dem fekk sëñ Moussa Mbacke Mouhamed borom niveau ji keep